Euh, pour dire que affaire kii bi oui hein le réquisitoire le réquisitoire malheureusement nous l'avons déploré nous l'avons tous déploré nous avons déploré le fait que ce soit toujours cette justice qui est là en fait, pour euh, justifier les actes de ce pouvoir, pour justifier, les, les, les, les, pour faire en fait cette sale besogne en fait, euh, voilà, de, et servir de, de bras, armés. C'est dommage. Euh, L'avocate générale est une dame que, pour qui j'ai beaucoup d'affection parce que je l'ai connue il y a plus de 40 ans. bon, qui avait un dossier. Mais malheureusement, euh, à aucun moment de son réquisitoire, nous avons vu un élément quelconque qui puisse corroborer, qui puisse asseoir la culpabilité de Barthélémy Diaz. Je vous l'ai dit tantôt, le juge, bon, le premier jugement s'est fondé sur euh, une vidéo et cette vidéo montrait bien qu'il y avait un, un, individu, un individu qui était toujours en liaison, qui n'était pas du groupe de Vassili Vijaz, qui avait tout fait pour se faufiler, pour se mettre, qui avait quitté Bourguiba, et TFM l'a bien montré, pour se mettre dans une position couchée pour tirer. Donc, euh, cette vidéo, malheureusement, j'ai demandé à ce qu'on la visionne. On l'a pas visionnée. et euh, elle n'a pas pu nous dire en quoi. Donc, que faisait cet individu là-bas Qui c'était cet individu Elle s'est seulement bornée à nous, nous lire le dossier sans prouver aucunement la culpabilité de, de Barthélémy Diaz. Eh, elle, a, elle, a, elle, elle a requis, eh, elle, elle a requis donc 5 euh, ans, 5 ans d'emprisonnement. De, euh, voilà, c'est tout ce que <laughs> qu'on a retenu, c'est la réquisition, 5 ans d'emprisonnement. En fait, moi, c'est surtout ce que j'ai retenu en fait. benn dossier boo xam ne dafa am solo solowaay boo xam ne. pour nga tëj nit euh, doo nekk sukkandiku rek si ay lu ñuy wax supposition wala ay supputation maanaam ay euh, euh, ay tàndale da ngay sukkandiku si ay ay ay wér ay wér yu wóor pour mun ko condamner surtout koo xam ne du n'importe qui Barthélémy Dias du n'importe qui Barthélémy Dias dafa diriger mairie Mermoz depuis plus de douze ans kenn mësu ko reproché benn manquement ñu investir ko encore léegi ñu investir que maire de la capitale c'est-à-dire la ville la plus importante du Sénégal ah. ku mel noonu dañ ko war a rendre justice loolu moo taxoon mu mu mu mu mu mu buggoon dossier bi ñu ñu ñu vider ko rapidement buggutul woon ñu ñu ñu ñu ko te wax na dëgg parce que du ko renvoyer noonu dafa mel ni benn épée de am maanaam loo xam ne. dafa nekk si kaw euh, boppam ah chaque fois ñu koy yëkkati pour bàyyi ko pour empêcher ko mu def liggéeyam loolu la xam fu mu nekk nii ni nga nar a dem si ay élections législatives yi Barthélémy misage loolu la xam buggoon na en fait ñu ñu dossier bi ñu vidé ko ah, ñu xam fan lay féete te ñun ñu ngi yaakaar te ñu ngi ñu ngi wékku si yàlla parce que. justice yàlla rek moo am amul beneen justice justice bu ñuy def fii yëpp justice nit la justice bu wóor mooy di nitu yàlla di surtout yàlla donc ñun ñu ngi ñu ngi ñaan yaakaar que justice boobu dinañ ko ko rendre maanaam ñu blanchir ko ñu bàyyi ko ba mu mun liggéey à la tête de la mairie de Dakar. Euh, alors ah, vous savez pour affaire réquisitoire bi comme ni ma leen ko waxee gis nga fii nguur gi dañu am benn nguur boo xam ne ku nekk si kaw mi ngi tudd Macky Sall gis nañ ne que euh, moom lu ñuy wax règlement de compte lay def maanaam ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi koy gêner ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi koy ndëbbu jant bi daf leen di bëgg a liquider comme ni muy wax liquider l'opposition à sa plus simple expression. gis nañ ko si dossier Karim Meïssa Wade gis ngeen ku lu mu ko def tëj ko ba pare après trois ans après daal di ko exilé gis nañ ko Khalifa Ababacar Sall Khalifa Ababacar Sall wax na ko bu ñ koy bu ñu koy muy layoo ñun soo gisee mu ñëw fii mu présenté wu c'est parce que Macky Sall daf ko def benn proposition mu ne non xam nga su fekkoon waxoon ne oui si proposition Macky Sall kon du kii président bi si boppam. moo ko blanchir bu mu jëlee pouvoir bi parce que ñoo bokkoon boor moo dem ne mi Diaz en fait réyul kenn léegi justice bi daal di euh, déglu instruction le président ñu bàyyi ko léegi Macky Sall ñëwaat parce que parce que Barthélemy Diaz mi ngi si beneen boor bi ñu koy poursuivre euh, donc vraiment lu ñuy euh, ñaawlu. réquisitoire boobu bu euh, bu cinq ans bu procureur bi jël kooku man euh, bettu ma parce que liggéeyam la dox dañuy wax liggéey boo xam ne dañ ko ko sant dañuy il faut appeler un chat un chat muus dañ koy wax muus xam nga fii suñ la buggee liquider dañ lay tëj dañ lay tëj pour ñu priver la de tes droits de tes droits civiques voilà moom lañ def Khalifa Ababacar Sall moom lañ def Euh, Karim Meïssa Wade voilà donc euh, cinq ans le le recueillir mais ñun euh, yàlla nañu wékku te xam nañ ne ku dul yàlla neen la